gannaaw bi ñu leen gërëmee yéen presse bi vraiment di gërëm bu baax waa Dangote parce que defe naa ni démb ñëw nañu maire yi effectivement jox ñu ay matériel bu am solo muy matériel euh, école pour école yi ak matériel boo xam ne dañuy jàppale si Covid bi muy ay eau de javel ak ay madaar joxe t-shirt yu bare bare bare donc loolu démb leen ko def tey ñu ñëwaat encore si marché bi din si jàppale pour cet gi ñëpp xam na ni nawet yi nawet bi marché yi ni ni mel xam nañ ko te yàlla dafa def marché yi nun ñoo ko yore waaye kartan gi nga xam ni war dañ koo am duñ ko am pour mën di taxaw tout le temps marché yi pour mu di set donc bu yàlla defee ñoom ñu xalaat ñëw def fi benn journée boo xam dañuy ñëw dugg si marché bi nettoyer biir marché bi nettoyer gannaaw marché bi vraiment nun mënuñu def lu di leen sat di leen gërëm di wax encore une fois que ni vraiment Dangote moom nun rëccuwuñu woon liñ fi doon ñëwee parce que Sénégal li fi xew xam nañ ko société yu bari dañuy ñëw di installer ci collectivité locale yi mais la plupart duñu xam sax lu ñuy liggéey duñu toppatoo aussi collectivité locale yi mais ñoom seetlu nañ ni période bu jot rek daanu ñëw ànd ak collectivité locale yi taxawu leen ci seen alal ci seen xel ci lépp rek pour que vraiment askan bi nekk ci jàmm et donc mënuñoo def lu dul di leen ñaanal yàlla yàlla yokku leen parce que jàpp nañ ni bu ñu yokkoo rek ñun daanu yokk ñu ñaan yàlla aussi ña fa nekk di liggéey yàlla may leen wér yàlla taxawu leen ba lépp loo xam ñi ngi koy mébét si Dangote waaye di ko mébét si collectivité locale yi yàlla eggale ko waaye daal si turu population bépp laay wax defe naa délégué marché bi mi ngi fi dana wax léegi waaye si turu population bi yëpp dañ leen di sant di leen gërëm di leen wax ni daal ñi ngi leen di yëgal di ko yëgal réew mépp que ni ñoom li leen sant si nan dañoo war a taxaw di jàppale collectivité yi loolu ñu ngi koy def ñi ngi koy def si li nga xam ni mooy biir màkk yi ak yeneen ak yeneen tabaski yi ñuy dimbali imaam yi di dimbali même ni ñi nga xam dañuy tabax ka néew doole waaye ñu ngi dimbali aussi collectivité locale li nga xam ne mënuñu ko woon defe naa ni suba am nañu benn inauguration boo xam ñu ngi koy def si benn école boo xam ñoom ñoo ko tabax équipé ko te loolu bu buñ ko bëggoon def muy sant yàlla bu buñ ko bëggoon a def dana xaw a yàgg duñ ko mën a def te avant loolu defal nañ ñu maternité te ñu ngi am yeneen yeneen objectif yoo xam ñu ngi ñu ko war a defal si lycée bi si stade bi si leneen donc ñun mënuñu def lu dul kontaan si ñoom ak di leen gërëm di leen sant di ñaan nag sénégale yëpp ñu ñëw di si maatu Dangote ñun loolu la ñuy ñaan parce que loolu suñu intérêt si la nekk waaw xam nga loo gis rek yenn saa bu buñ ko buñ la ko waxee man bi nu ma ko waxee li ma jëkk xalaat mooy alhamdulilah parce que fii dañ koo dégagé woon ba mu libre mais si tabaski bi ñun ñaan ni dañuy del si waaye buñ la ñaanee mënuloo leen dara waaye comme que Dangote ñëw na ni dañuy nettoyé nit ñun leen Dangote bu ñuy nettoyé seen oto yi il fu mu jaar si la ñu profité biig ñu dégager une grande partie tey bi nu ñëwee aussi fekk ni niñ ko dégager du noonu leen ko bëggee woon ñoom seen bopp ñoom ñoo leen jox directive ni leen ñu dégager leen ñuy ñu dégager waale ko li si des incha allah rabi daan waxtaan ak délégué marché bi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo représenté maire bi muy juuti fi ñëw pour que vraiment fii ñu maintenir ko muy set. ñu maintenir ko pour oto mën a jaar nit ñi mën di jaar waa marché bi jaay mais bàyyil côté bi nag ci yoon bi mu doon noonu loolu vraiment defe naa ne daan ko def moo tax euh, ma ni tey ñoom nettoyage la ñu def mais li ñu defal sax ñoom mënuñu koo xam en contentement moom def nañ ko te merci moom boo ko waxee rek c'est parce que merci la te man gëw gëwuma mukk wax nit merci te fu ma dara parce que dañ maa dénk nag dëkk bi ñu nekk fekk askan bi askan bi nag la ñuy jiital ci lépp lu ñuy def moo tax képp ku taxaw ñu ni ko merci jàppal ni ko jàppale nga askan bi parce que ñun kenn rek lu ñu am muy askan bi képp ku defal askan bi ñu ànd ak yow néewal askan bi doole ñu taxaw jàkkaarloog yow te ñoom li ñuy def yëpp dañ koy def pour askan bi dañuy def loo xam ne sax ñun duñ koy yëg te lool yi ñuy def yëpp si askan bi lañ koy jëmee donc il faut ñu leen grand merci vraiment. waa comme ni ko maire waxee rek journée bi moom vraiment bett nañu mais baax na parce que démb à 14 heures ou 16 heures la ma maire woo ma woo le bureau du marché ñu dem on s'est réunis dans son bureau bon ñu trouver terrain d'entente ñu arrondir les angles. pour débarrasser wu li nekk fii yëpp profito waale si defaraale mbedd mi comme li mu wax léegi li mu tëjee su ko defee aller et yi mën a dox normalement pour que la voie soit libre vraiment dàngoon moom parce que man dafa bari ay branche yu ma bokk yoo xam ñoom dañ fay dañ fay actionné je suis je suis à la mutuelle de santé c'est c'est c'est le plus grand de ce de le suivi bi parce que bu suivi amul rek la amoon day amaat suivi bi nag après il faut ñu toog ak maire ñu xool comment nañ koy réglé soit ñu wut ay taxe teg ko fi wala ay tableau ku def nangam nangam mooy dal sa kaw wala diw lañ fi teg en tant que représentant du maire et de la mairie et du marché loolu il faut mu am suivi il faut mu am c'est obligatoire. Euh, le marché est organisé on a un bureau à partir de ce bureau on va essayer de se réunir d'ici le week-end pour arrondir les angles pour régler ce problème incha allah on fera le maximum incha allah mais ça sera chose difficile mais inchallah on fera le maximum tout d'abord leen euh, remercier parce que lii du gulet c'est pas la première fois parce que ku xool bâtiment yi xam ni ay million moo ci dugg te loolu Dangote moo ko def loolu tamit ci cadre RSE la donc mooy responsabilité de de des entreprises donc lii nga xam ne ñëw na fi dinañu permettre donc de lutter contre yenn infection yi parce que corona dafa ñëw dolli ki rek mais laatee corona donc amoon na yeneen infection am na infection néonatale am na yeneen infection yoo xam ne donc mën nañ ko amee fii ci poste bi soit ki nga xam ne mooy faju si mën na ko fee jëlee ñun ñi nga xam ne ñooy faj mën nañ ko dal parce que malade mën na ñëw jox ñu ko donc avec euh, matériel yi donc dinañ permettre ñu xeex loolu également corona bi nga xam ne ñëwoon tamit dolli ki ci te gis nañ donc dafa def li may def daal en tant que responsable donc je le dis ci turu ñëpp ñi nga xam ne ñooy liggéey ci poste bi donc di leen jaajëfal rek donc du nu du nu du nu du nu lot di leen di leen di leen di leen jaajëfal rek. njeexital bi comme ni nga ko waxee sànq euh, des fois dinaa waxtaan parce que bi ñu koy commencé donc ICP bi fi ne woon te mu jiitu donc yàlla na ko yàlla yërëm donc moom moo moo entamé woon loolu. amoon information mais ces derniers temps donc maa ngi wax ak entrepreneur bi mais daal d'ici un mois daal ci li ñu jotoon a wax. yaakaar naa dinañu jot suñuy clé parce que poste boo xam ne ngi presque ay vingt et personnel te ñëpp sage bi peut-être ak ambulance rek la municipal bi di gérer ñi ci des ñëpp poste bi moo leen fay te ku ne da nga am salaire fixe c'est rare ñu bëri dañuy calculer ay barème mais ñun salaire fixe lañ am di ko di ko jox chaque mois dañ koy fay même bu malade dañ koy fay loolu problème la donc bu ñu maire gën a mën a jàppale wala bonne volonté a a motiver 24 heures sur 24 7 jours sur 7 ci Sénégal wër leen ba sonn doo gis benn poste de santé boo xam day assuré 7 jours sur 7 24 heures sur 24 donc loolu problème la beneen problème bi ci wàllu ndox bi wàllu courant bi loolu tamit ñoo koy fayal suñu bopp te ndox bi xam nga fii dafay cher courant dafay cher loolu tamit bu ñu mairie bi mënoon a jàppale ci loolu tamit dinañu dinañu dinañu gënal donc ci euh, comme ni ñu ko waxee ci nasaraan sànq rek donc njëkkee nañ marché Pouce dem pour nettoyer ko dafa benn set setal donc accompagner c'est pas la première fois ñu leen accompagner ci domaine boobu donc ñu gis ne sunu yaay sunu maman yi sunu sunu sœurs yi sunu frère donc foofu la ñuy gagner seen vie foofu la ñuy liggéeyee donc foofu la ñuy nekk foofu la ñuy defee lépp donc pour cadre de vie bi gën a euh, yaxanal donc moo taxoon ñu organiser si benn journée de nettoyage donc pour les dans ce poste de santé bi aussi voilà construction bi comme ni ko gisee nii donc on va bientôt euh, vers l'ouverture donc léegi dem ci ouverture bi donc tey moom la ñu doon xool si waat fii aussi travaux yi la toll ak aussi euh, profiter occasion bi ak journée Senelec bi daal leen di fournir doter leen donc équipement de protection et autres donc pour le permettre aussi de se protéger contre la maladie. donc euh, maa ngi tudd madame Ndiaye Aïda Diop nekk euh, jiital euh, kuréel gi nga xam ne moo dajalee jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi ci wàllu mine bi pétrole bi ak gaz bi donc balaa ñuy dugg si loolu ñuy remercier waat suñu partenaire bi nga xamante ne mooy Dangote ci initiative bi nga xamante ne moom la ñu jël ci seen semaine de la durabilité maanaam li nga xamante ne moom mooy ñoŋal luy wéy ba nga xam ne même bu mine bi jeexee sax dinañ mën a continuer donc li ñu def tey nekk loo xamante ne lu innovant la parce que en général nit yi daan nañu dem ba di liggéey ci mine bi door a mën a accéder sax à la mine mais déjà euh, instant bi ñu toll ñoom ñu mën a jël ay euh, jeunes fii ak garçons yi nga xam ñi ngi ci communauté yi nga xam ne ñoom ci la ñuy liggéey du mel ni Pout Morolan Diass ak Kër Moussa indi leen ci biir mine bi di waxtaan ak ñoom pour mun di xool naka la ñuy def ba ñoŋal leen ci seen wàllum njàng ak ëllëg euh, liggéey bi nga xam ne ñoom mun nañ ko am ci société bi de manière générale ak ci entreprise bi de manière particulière donc mu nekk loo xamante ne ni tey initiative bu ñuy saluer la te buy ànd ak euh, li nga xam ne mooy développement wu dëkk bi ak développement wu àdduna bi sax ndax comme ni ngeen ko xamee ci objectif de développement durable yi euh, wàllum qualité la mooy ODD numéro 4 éducation de qualité ak tamit wàllum euh, équité ak égalité euh, jigéen ñi ak góor ñi ba ñu xam ne fu góor mun a toog tey jii nii jigéen tamit war na fa mun a toog loolu nag dafay nekk loo xam te ne dafa am euh, ay euh, fu mu war a tàmbalee mooy ci ne tey xale yi ndaw yi surtout ndaw yu jigéen yi euh, xam nañ ne tey ji ni njàngum jigéen ñi ñi ngi ciy góorgóorlu parce que ñi ngi dem l'école mais li nga xam te ne mooy problème bi tey mooy nan lañuy def ba téye leen ci école bi nan la ñuy def tam ba ñu mën a jàng njàngum science yi pour mën a ëllëg fépp fu seen moroomi góor ñi taxaw tam ñoom ñu mun faa taxaw donc loolu moo waraloon ci ñu mën gën a mën a euh, topp njàng mi rawatina njàngum science bi et que ñu xam tamit tey yan métier la ñu mën a am bu ñu nekkee ci biir euh, seen société ak pour jëriñ seen société ak tamit pour mën a liggéey tey ci entreprise yi nga xam ne mooy mine yi wala pétrole bi wala gaz bi parce que yenn saa yi da ngay nekk rek ci euh, côté dëkk bi nga xam ne fa entreprise bi nekk nga ne man damaa bëgg liggéey ci mine bi mais est-ce que yow tey am nga par exemple compétence yi nga xam ne moom la mine bi di laaj loolu dafa laaj préparation ak tamit nit ki xam ko information formation donc loolu moo tax nag tey ñu doon waxtaan ak ñoom ci yenn métiers yi nga xamante ne euh, ñoom mun nañ ko euh, am ëllëg mais ci bu ñu commencé njàng yenn jàng yi lu mel ni tey géologie xam nañ ne tey jii moom mooy li nga xam ne bokk na ci yiy jiitu ci terrain bi bu ñuy def euh, genre entreprise yi ak topographie ingénieur yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo def par exemple génie civil pour waneen tamit yeneen compétence yi sax dañ leen di soxla comptabilité soo ñëwee jël par exemple ñi nga xam ne def nañu juridique informatique teg pour wane ne daal liggéey yu bëri tey ñi ngi koy liggéey mais entreprise bi daf koy soxla ndax entreprise dafa mel ni dafay dajale fonction yu bëree bëree bëri pour mun a liggéey par exemple pour mën a doxal euh, dundinu entreprise bi léegi loolu nag dafa laaj préparation euh, dafa laaj tamit engagement et dafa laaj accompagnement engagement wu parent yi parce que tey jii nii tamit euh, li tax jigéen ñi ñu ci bëri duñu euh, def njàngum science bi bokk na ci ci yi nga xam ne moom la leen société bi di teg mooy considération yoo xam ne teguwul fenn euh, lu njàngum jigéen warul sore jigéen warul def science lii liggéeyu góor la lii liggéeyu jigéen la mais tey gis nañu ay nit yu nga xamante ne nii euh, réussir nañ ci loolu te euh, sans pour autant tenir compte affaire góor wala jigéen tey exemple madame mbay nekk na loo xamante ne nii exemple la ak yeneen ay jigéen euh, yoo xamante ne tam gis nañ leen ci secteur bi ñu distingué bu baax a baax Euh, ndaw ñi nga war a tàmbalee pour que loolu soo bëggee am résultat et lu mën a nekk la ndax tey ñi ngi ànd ak ay xale yi nga xamante ne ñun ñu ngi leen di tàggat boobu ak léegi tax na ñoom tey xam nañu ko ci laaj dina la man lii laa bëgg a doon ëllëg lii moo tax mu bëgg koo doon et par exemple su ma ko baree doon nii laay jaar donc loolu tamit su yombee ci ñun tey c'est parce que programme de mentorat bi ñu teg di leen gunge pour que ñoom ñu mën a gunge ba mën a tekki loolu moom moo ko wara nous sommes très heureux de recevoir une telle bourse et nous remercions vraiment Dangote de, de nous encourager. Voilà. waaw euh, e ah, mbégte la ñuy sentir de waaw ñoo ngi jaajëfal waa Dangote bu baax ci bourse bu ñu may nii un million waaw gën ñoo encouragé ci lii ci yoon bi ah, ñu gën ñu gën ci jàpp rek dañuy liggéey lu bëri après ñu ñemee série S de série S bi day baax Aujourd'hui, je viens de recevoir euh, euh je fais partie des lauréats avec un prix de euh, donné par l'industrie Dangote. C'est un honneur et un plaisir pour moi et pour mon école. On dit merci à Dangote pour, pour ce cadeau. Merci, merci encore. Merci. Euh, euh les autres, je courage. Le chemin est difficile, mais faudra faire l'effort. Inch'Allah, ça ira bien. gannaaw ma jotee bourse bi maa ngi ànd ak mbégte bu rëy ñoo remercier bu baax euh, industrie Dangote ci bourse yi kontaan nañ ci lool. Euh, élèves yi ñu ngi leen di conseiller euh, rêve de croire en eux. ñu def efo incha allah ça ira bien. bourse bi lan la mën a servir. Euh, bourse bi euh, mën naa cee euh, mën naa cee sama étude mën naa cee dimbali samay mbokk incha allah et d' aussi ok. Et nous disons aussi euh, aux autres élèves de redoubler d'efforts, comme ça l'année prochaine, ils pourront aussi bénéficier de ces bourses. une formation pourquoi pas. xanaa kontaan rek di remercier waa Dangote si lépp lu ñu defal. formation ak euh, université bu ñu fa demee tamit pour restauration bi et tout ça ñu bañ a sonn a góorgóorlu comme ça déwén lii ñu am ñoom ñu am ko tamit. au suivant. oui je ressens un grand thème de travail sur cette course. Je remercie aussi Dangote. Ils m'ont ils m'ont aidé à pouvoir réaliser mes rêves.

Donc nous avons euh, donc, la semaine de sustainability euh, le, mardi, euh, 20, euh, le mardi 28 euh, septembre la première journée s'est déroulée au niveau des communautés. Nous avons procédé à la distribution de fournitures scolaires, de, de produits sanitaires, de posters de sensibilisation au niveau de la mairie de Pout, de Kermoussa, de Dias et de mont nous avons également donné, un don au centre de santé de Fouloum, qui est un centre Dangote avait construit Donc au cours de la deuxième journée, nous avons euh, porté l'accent sur euh, les femmes, le genre, et nous avons invité Women in Mining qui nous a fait une euh, session de sensibilisation pour euh, les métiers scientifiques, pour les jeunes filles. Donc nous avons invité les, les lycéennes donc des quatre lycées, donc de Pout, de Carmoussa, de Dias et de Mont-Roland. Et Madame Aïda Diop euh, leur a expliqué donc l'importance donc de choisir les sections scientifiques et de et les, tous les débouchés donc qui en découlent. Et, C'est une première, exactement, c'est une première. Et demain, nous avons donc une session de sensibilisation des femmes sur euh, le contenu local. Nous avons invité les femmes transformatrices de Pout, des quatre communautés. Et nous avons invité Madame Maïmouna Diagne qui va nous faire donc une session de, de sensibilisation, de formation et de, de leur donner donc certaines euh, directives pour euh, qu'elles puissent réussir leur transformation. Euh, écoutez, nous avons un comité de, de concertation RSE avec euh, les quatre communautés et on se réunit régulièrement et c'est au cours de ces réunions que nous discutons donc des projets prioritaires avec les mairies, avec les chefs de village et à la suite de ces discussions, nous, enfin les maires nous donnent leurs orientations et sur cette base-là que nous finançons leurs projets ou leur, euh, leur, euh, pour leur commune. waaw euh, xam nga ci boo waxee sax juróom juróomi at yi tax pour man tuuti na parce que ku mel ni man yaa ngi fii avant juróomi at yi donc ay activités Dangote surtout jëm ci communauté yi yàgg na ci bëri na déjà avant projet bi nekkee projet déjà ay action yu mel ne yóbbu population yi màkk dimbale leen ci tabaski dimbale leen ci koor gi tabax ay école boobu commencé na boobu activités yi commencé na ça veut dire que boobu chiffre d'affaires sax amagul boobu activités yi déjà commencé na waxatuma ak laal léegi nag bi activités yi commencé depuis 2015 donc loolu dafa renforcer ay yéene Dangote vis-à-vis de ces communautés te yéene yooyu bëri na ci fànn yu bëri yu mu étalé mu ngi dem ci éducation mu ngi dem ci santé mu ngi jëm ci lutte contre la pauvreté mu ngi jëm ci assainissement mu ngi jëm leen ci yee leen ci domaine yu nga mën ëllëg dina leen indi dara comme tey li ñuy développé mbirum formation scientifique parce que le monde de demain c'est un monde scientifique si tu n'es pas scientifique tu es out yaa ngi bokkuloo pour wax ci wolof c'est pourquoi Dangote di yee askan wi nga xame ni moom la dëkkal parce que say mbokk rek nga mën a teel a yee pour ñu fagarul ndax ngir ëllëg donc ci la Dangote nekk séance bi ñu tenir tey jël xale yi nga xamee ne ñoo nekk ci sa yeeg euh, collège yi nekk ci gox-goxaan yi invité leen sur les métiers de scientifique les métiers de demain lu am solo la dina tax mu éveiller ci ñoom benn conscience mu éveiller ci ñoom peut-être lu nga xam ne danoon nelaw parce que xamaguñu lu ñuy def. mais ëllëg ak tey jii à partir de maintenant ku ci nekk dina ni waa may man série bii may def nii lan la ma mën a jural ëllëg ñun nous sommes dans l'industrie c'est vrai que nous avons des gens qui sont des littéraires mais en majeure partie ay scientifiques la ñu en fait parce que c'est du domaine technique waaw loolu déjà euh, motivation la mën nañ ko tuddee motivation encouragement la ndimbal la tamit ci biir kër yi parce que ñëpp xam nañ ni kër yi métti na àdduna bi métti na dund gi métti na xëy na loolu rôle état la mais ñun au niveau local dañ ciy jéem a bay suñu waar pour jàppale askan wi jàppale waa kër yi pour xale yi parce que bu xale yi tekkee rek lu métti yëpp ñu fàtte ko donc bu ñu leen jàppalee xam nga un million bari na bariwul ndax xëy na boo xoolee un million bi dina financé xale bi ci jàng mais xëy na sax dina dimbale ci kër gi loolu yàlla rek moo ko xam donc looloo tax ñu jël ak action yu mel nii parce que ce sont des actions mûrement réfléchies en concertation ci biir. donc ñu jox xale yi jagleel leen ko pour jàppale leen ngir ëllëg et dina tax concours ci biir xale yi gën a éveillé parce que le monde là c'est un monde de compétition da ngay juddu war a am esprit de compétition parce que boo ko amul rek ñu bàyyi la fi. ah xanaa li ñuy wax dañuy yokkute rek parce que da ngay ñaan yàlla li nga mën ren déwén mu gën a yokku tey yaa ngi tabax ñaari classe ñetti classe benn dispensaire. benn pont euh, ubbi nga fële euh, forage lëg nga yokk leneen yokk ñaar wala ñetti forage def ay lycée peut-être université demain parce que il faut toujours être ambitieux parce que le monde avance et plus ñun ñuy développer et plus les populations vont le sentir ça ça au moins c'est clair parce que la politique qui est déclinée par le management c'est ça il faut venir en aide aux populations qui nous entourent concurrence bi moom ci concurrence bu saine la y trois cimenteries yi ñi ngi fii kenn ki mi ngi fi depuis 1948 mooy magub ñëpp am na ku fi nekk depuis mille ñun ñoo ci mujjee li ñu wax ñooy caat te xam naa du ñu caat parce que peut-être ñeneen dinañ ñëw la concurrence est saine ñoom ci seen biir dinañ waxtaan parce que ils ont des objectifs communs donc c'est pas une concurrence boo xam dañuy rayante di jamante déedéet ku nekk le Sénégal lu marché est ouvert le Sénégal est assez porteur et y de man donc ku ci nekk daal euh, yaa ngi bay sawaar la concurrence daal concurrence bu seen la loolu daal amul benn problème nag dañuy jéem li ñuy wax activité yi ñu def ko ñoom xëy na ñu ngi def yeneen activité RSE xamuñu ko ñun mais ñun li ñuy def euh, xam nañ ko te vraiment xam nañ ni ñu ngi ci yoon wu baax